برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجا جخن نينان الصلاة والسلام على رسول الله نيجي سنت على بباق di julli ci seydina muhammad alayhi salatu wassalam di ndokel alam bi yépp ci ki nga xamne ñu ngi préparer bisam te mom moom moom mooy muccuwaayu mbindaafoon yi tey ak koku moy sayyidna Seydina Muhammad aleyhi salaatu wa salaam waye ñu ngi sante la baax soppé mburi bi nga xamne mom mo waxat bopam ne mom Cheikh Ibrahim fa sanu sanu ajib wa ramsuhu wa ramsul habib ramsul habib lil habib mu ne fuutu xeyra kon ñu ngi sant yàlla bu baax di gërëm yàlla ci ay mayam bi yàlla mayee ñun tam sam ñëw nekk yun tam yàlla ñu gëm ko Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu di ko tagg-tagg yu rafet yu neex ne waxuma dara même kaw nu bi nekk nii sax nettre bi jiyu yàlla ji ba lépp am mooy yun tam alayhi salaam kon nag ñu ngi ndokkeel baax àddina bi yëpp li tax ñu nekk àddina bi yëpp nag lépp loo mooy liggéeyu Cheikh Ibrahim la ndaxta bàyyi wër na àddina bi yëpp fu waa àddina nekk ci àddina rek réew moom mu nekk Baye dem na fa. lu tax mu fa dem lan la tasaare islam tasaare de tarixa Cheikh Tidiane waa tasaare usu fayru Cheikh Ibrahim bi. yun sam na ci hadiis bi nee na wala aaya na jot ci man donte mu nekk benn aaya kon Cheikh Ibrahim Ibrahima yaakaar naa ne drapeau l'islam mu ci loxoom. drapeau Sinta aussi mu ci loxoom kon ñu ngi gërëm yàlla baax ci ay mayam di wax rek ne. léegi sogo su ñuy def li ñu ngi pare benn bis ci bis yàlla yi euh, bis yi nag bis la yoo xam ne bàyyi nee na ahlul dunya fi ayaami dunya wa ahlullaahi fi ayaami laay ayaami laay yi noonu nag tilkal ayaam nu daawiluha bayna naas ñu ngi sant yàlla bu baax nag bis yàlla yi nag benn bis la ci ci bis yàlla yi mooy bis yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa ndaxte moom mooy bis ba njëlbeen ci bis yàlla subhaanahu wa taala bàyyi waxal nañu ko ay wax yu bari ci ay abiyaatu yu bëree bëree bëree bëri kooku la ñuy parpare bisam fii nga xam ne Cheikh al Islam Ibrahim moom ci bëgg gi mbëgg taal Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi nga koy liggéeyal ca lawoon njaboot yëpp ñu teew mu ne léegi nag na di màggal juddu yonent Yàlla Muhammad ci weeru avril mu nekk weer woo xam ne ci euh, tubaab lañ koy mën a xamee am na juddu yoon sam ci weeru euh, weeru arab bi ñu xam waaye juddu bii nag moom ci avril lañ koy def mu nekk tolloog vingt avril bi lay lay wee affaire yooyu sax damuy firi ci yàlla bàyyi def ne eh, kasalaka ne lil xamsa wal xamsa hafisan li xamsin wa xamsin nii ma asa al musanif bàyyi daf ko woy wëy bu rafet nee ko kon wee affaire boobu nag kenn ku nekk ci yéen nekk sama taaliba yow taaliba Cheikh Ibrahima na ngeen dajee fii ci jëppal bu njëkk ñu ko defee jëppal léegi nag doomu Cheikh Islam bu mag ku baax ñu Seyda Mariam soxna Mariam mi ngi xam yàlla may ko mu am fi benn barab bu yaatu lool at yi pass yëpp fa lañ koy defee muy barab bu yaatu barab bu barkeel bu yàlla bu def ay leer yu bari fa lañ defee nag incha allah bi Afrique bi ñu ngi oo nag adduna bi yëpp moo adduna moo yëpp parce que bàyyi moo woon na doo ifriqiya ah, wa europa wa asiya wa amérique ila din fitrati bàyyi mu ne maa ngi woo waa afrique di woo aussi waa asie di woo encore waa europe yëpp ak waa américain maa ngi oo adduna bi yëpp ci diina ji nga xam muy dëgg ji kon ku noonu bu ootee bis mu nek bis bo xamé wax di bi sant yàlla subhanahu wa taala ñëpp di woon aussi kon ñu gëw wa adna bi yépp wax dëgg di ndokal ñëpp ci bis bobu di waxé nak bép talibé baye bo uyoo nak cheikh talibé Cheikh Ibrahim nga du dagan ci mukk nga dégg bis bi te ñëwu ci bi gépp nekk talibé baye nga na baye ñees sama sponsor mom la yaaka adna ala xira baye ñees bis toll nii te ñëwuloo ci dëgg dama ne su boba dëgg dëgg war nga sopp baye mo kën war waaye dama ne war nga sopp la nyep lay wax kon ñu ngi ndokal di leen ziar di leen khalifa Cheikh Ahmed Tidiane ibnu Cheikh Ibrahim Niass mooy jiite délégation bi yëpp. German officer bi ñu war a def moom moo koy jiite te xam ngeen ne kooku fu mu toog dëgg dëgg yàlla ku ku ne kenn fu fa jëm war a toog fu Cheikh Tidiane ñëw toog ci ci ci ab heure joxe nag heure boo xam ne heure boo xam heure boo xam ne moom kenn ku ne war koo fekkee mooy quatre heures la ko joxe. quatre heures nag nay wa tàng jër la kenn waru faa nelawee kenn waru faa am benn soxlaat yi ku toll Cheikh Islam doomam jugee Kaolack ba fii. te mu nekk mag ñu ñëw mu mag ñu encore boole ci ñëw fekkee cérémonie usul boobu kenn ku nekk ci amatoo ngat ci ñëw ci cérémonie boobu boobu nag cérémonie bi nag ne nekk lu rëy wax dëgg yàlla mboolem waa Afrique dañuy ñëw mboolem Afrique soo limee da ngay jum waa Afrique yëpp ay ñëw riif africain ñëppay ñëw kilifa yëpp dañuy ñëw eh, eh, kilifa aada yeeg kilifa yi gini ñëppay ñëw kon ñu ngi santee baax di ndëkkal ñëpp di bis na ko ñëpp fekkee si quatre heures incha allah dina fa ñëpp a teew mise en place bi ñëpp a teew si xalifa bi dana ñëw teew dana fa kàddango sell gu neex googu dana ko fa def jàmm yàlla danañ fi ñëw tombay danañ ñëw sëtabaay danañ ñëw muqadam yi ñëw kon ñu ngi ndëkkal ñëpp dinañ zaare ci dina ci bisu wasalaamaaleykum